wa rahmatuhu wa barik yàlla ngi dogal ñu dellusiwaat ci bërëb bi nga xamee ne moo di 2STV fas yéene jëm ci wàllu waxtaan waxtaan wi nag dafay delluwaat ci alquranul karim alquran nag bu ko tuddee tudd nañu lépp nga xam ne tey bu fekkonte ne diine islam am na constitution am dustuur bi dama naan mooy mooy alquranul karim rek faf e, yàlla dogal itam alquran nag mën a sa ci wax ci fànn yu baree baree bari waaye tey euh, biñ ci biñ ci jublu liñ ci jublu tey ci weeru koor wu sell wii mu di chehru ramadan al mubarak mooy yaatal mbindum alquran waaw mbindum alquran xëy na mbindin am na dama njort ne mbindin am na loolu sëriñ bi dina ci ñëw léegi mu di cheikh Moustapha Guèye mi nga xamee ne jàngalekatu alquran la moom itam nekk mudir madrasa Miftaahu Nasr euh, fële ca Kër Masaar euh, moom lañu dalal tey alquran nag. boo waxoon tey ahamiyatul quran fil mujtama njariñal alquran ci société bi buñ ko waxoon kenn mënu koo jeexal soo ñëwee ci xusuusiyaat ay xusuusiyaat yi nga xam ne moom la yàlla jagleel téere bu sell bii kenn xamut nu mu toll waaye ay gone dañ koy jàng ci réew mi gone yooyee am na ci dañ koy mokkal léegi liy mokkal alquran ci biir Sénégal kenn xamul nu mu toll waaye ci biir mokkal bi dafa mokkal ba noppi itam bind am na ñoo xam ne dañuy bind kaamil kaamil am na ci gone yoo xam tuut tànk yoo xam ni daanaka kaamil bi buñ koy bind duñ ko xool loolu nag bu ca nit nekkee di ca daan dooleem di ko mottali ko ak jaamu yàlla am lu ñu war a sargal la lu ñëpp war a jàpp la moo tax sëñ Moustapha ñu ngi lay jox kàddu gi nga nuyu dugg ci waxtaan bisimilah. auzu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi dawi ridwani wa tamkin mbokki jullit fu ñu mën a ne ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wa rahmatullah. Eh, di leen nuyu oustaz Maodo. Mm. ak mbokk yi ñu fekk ci kër gi yëpp. Mm. ak mboolem ñi nga xam ne ñoo fiy liggéey. Mm. ak kilifa kër gi. ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaara. di am mbégte ci bokk yéen jotaayu bu amee nii solo. di taxawaay yi nga xam ne yéen a ngi koy am ci diini ji. ndax bu ñu ñëwutuñ jamono yi ne ñu ngi leen di suivre mhm. di seetaan télé bi di gis waxtaan yi am solo yi ngeen di def thème yu am solo yi nga xam ne moom ngeen di génne mhm. ak macha allah borom xam-xam yi nga xam ne ñu ngi leen di dalal fii ci kër gi mhm. muy kër goo xam ne euh, toolub lislaam bi kenn ëpp ko ci lu muy bay euh, kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yëkkati ko bu baax baax amiin yaa rabbal ko ba mu nekk ca kaw a kaw egg fu kawe njort Euh, Sëriñ Moustapha maanaam bala ñoo dem sax ci rasmul quraan yaak yooyu. Mhm. maanaam xusuusiyaat yi am ci alquran tey boo ci doon def ab taxaw seetlu nooy def. waaw jërëjëf oustaz euh, alquranul karim euh, waxtaane ko ni nga ko junjee léegi ci weeru koor. Hmm. dafay lu jaadu lu rafet. Hmm. ndax day weeram. ndax ci weer wi ci la ko sunu borom tabaraka wa taala wàcce. shahr ramadan allazi unzila fihi alquran. Hmm. maanaam euh, anniversaire alxuraan mooy mooy mooy weer wi. Mhm. boo gisee mag ñi raw ñëpp mooy ñoom bu weer wi masaan jot dootuñu tal dara ak njàngum alxuraan mu bari. jàng rek jàng rek luñ ci daan def dañ koy yokk. Hmm? dañ koy yokk ba léegi ñi leen doon ak ñi leen wutu boo demee boo demee ci loolu lañ nekk ku ci daan jàng ab kaamil ci weer wi bu weer wi jotee da nga jàng juróom-ñaari kaamil wala juróom-ñett. Hmm? waaw ndax sa jukki bi nga xam ne. mën naa am juróom isib la woon léegi da ko def fukki isib ak juróom nga xam ne weer wépp jàng alxuraan la ñuy la ñuy nekk weer yi mooy mooy weeru alxuraan mm-hmm. ci lañ koy war a nafaraat ci la jibril daan dikk ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko nafaraat ak moom mm-hmm. muy jàng muy dégg loolu kon anniversaire gën a kawe loolu mm-hmm. alxuraan waxtaane ko ci weeru koor ku ko def dañuy wax ni delloo nga bàtt ba ca ndaa delloo nga bàtt ba ca ndaa ndax euh, weer wu ne waras na ko caa waxtaane mhm. waaye biir weeru koor moom euh, dafay mel ne sax kenn daa warta waxtaane sax loolu alxuraan donte donte tem yëpp baax yëpp rafet mooy lépp waaye alxuraan moom boo ko ci dee waxtaane ku la dégg rek day xam ne yow yaa ngi def la war a def mhm. ndax lii mooy weeram alxuraan nag ni ko waxe euh, géej la goo xam ne amut tefes mhm. yëmut fenn Euh, kon ku ciy dugg itam xam ni nga ciy duggee baax na lool ndax dafa dafa dafa dafa doy waar. Ah, loolu yéeme la dafa doy waar lool sax lool lool lool te doy waar gi loo ci gën a xóot di ko gën a xam. Hmm? loo gën a xóot di gën a di gën a xam doy waar gi. bokk na ci ay jagleelam euh, yi ñu ci mën a lim rek ndi yëpp moom kenn mënu ko lim ndax hmm. ndax bariwaay bi. Hmm. waaye yi ci mën a lim bokk na ci mooy benn téere bu sunu borom garanti. téere boo xam ne yàlla garanti na ko ni dana fi des ba faw te dara du ci changé. ak a wóor. waaw lu leer innaa nahnu nazzalna dhikra wa innaa lahu la xaafidun mhm. foofu rek la ko yàlla mas a wax. mboolem téere yi suñu borom mas a wàcce garanti wu ci benn moo tax yu ci bari tey yenn yi kenn gisatu leen yi ci yi fi dese ku am na ci yoo xam ne eh, dañ ko taxrif maanaam dugal ci yoo xam ne bokku ca génn ci lu ca bok mhm. a yeneen ak yeneen. mais alxuraan nam mu wàcce woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba fii may wax ak yow ak liif dolli ko ci mu wàññi ko ci. loolu garanti bi suñu borom moo ko waral. Mm-hmm. boo gisee ca tàmbali ba ñu daan ko bind ci ay ay der deri gëléem ak ay xeer ak ak mm-hmm. fu ne ci ci ci fa jamono tolloon muy dox di dox di dox di léegi ba léegi carte waar bu gën a tuuti ab kaamil mën cee nekk. Mm-hmm. loolu xam nga ni wattuk suñu borom dëgg la. kon euh, yàlla wattu na ko. ñaareel ba mooy alxuraan mooy euh, téere bi nga xam ne mboolem sharia yi fi mas a jaar. tàmbalee ci sunu maam aadama ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu fi mas a jaar ci ci charia rek lépp dugg na ci biir amul leen lu des mm-hmm. lépp ñëw na ci biir alxuraan maanaam maanaam alxuraan su ma la déggee dafa dajale mboolem ku yàlla ma sa yónni mboolem ku yàlla ma sa yónni rek lépp loo woon waaw def nañ def nañ xitaam bi foofu du ko tëj du ko tëj lépp ngi ci biir la yuusufa woon ak la muusa ak la keneen ak la lépp ñëw na ci biir loolu moom rek ko jago alxuraan mooy téere boo xam ne boo jàngee benn xaraf ñu fay la fukki tuyaaba boo jàngee aw saar kon ñaata ngay am. Hmm, ok tarkal ah, ñaata saar ñaata araf ñoo ne ci saar bi. Hmm. yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ni boo nee alif laam miim alif gi rek fukki tuyaaba la laam fukki tuyaaba la miim fukki tuyaaba la léegi nag nga jóge fa jim jëm naa si. ku la ko defal ay milliards ay milliards lañ yàlla defal. amiin yaa rabbal aalamiin. Euh, kon euh, loolu amul ci benn téere téere boo xam ne tiim gi di jàng rek ak jaamu yàlla. waaw ah waxuma nga ñëw ci jëfee lam digle de. Mhm. ak lam tere ak yooyu waxuma loolu. mais nga tiim ko di ko jàng nii rek yaa ngi ci ak jaamu yàlla. te jaamu yàlla yi gën a foor alxuraan zikr zikr wa innahu la zikru lak wa li qawmik wa sawfa mhm. jaamu yàlla la goo xam ne genn féetewu ko kaw. alxuraan itam ba tey. Euh, ci ay jagleem bokk na ca mboolem fànni dundini doomu aadama ñëw na ci biir hmm. social a hmm. nga ci biir sante nga ci biir économie nga ci biir lépp maanaam mboolem dundini doomu aadama yi li ko wër rek environnement nga ci biir lépp ngi ci biir maanaam liy defar lépp ngi ci liy defar nit lépp ngi ci biir lépp lu doomu aadama war a soxla amut lu ko génn loo ci soxla rek xanaa sa xam egg ca wala nga ñàkk ca egg hmm. waaye lépp ngi ci biir ma faratna fil kitaabi min min shay'in ma faratna fil kitaabi min shay'in loolu la suñu borom wax bàyyiwuma dara ci téere bi lu ci war a dikk rek dikk na ci dikk yooyu nag léeg mu dikk ci façon boo xam ne nii ñi dañ ko mën a xam léeg mu dikk ci façon boo xam ne itam borom xam-xam dëgg moo cee mën a egg. Mhm, waaw day xaw a day xaw a day am euh, mutashabihat dafa am nu muy ràbbalooy noo xam ne. Mhm. pour teqale ko du du yomb koo xam ne sa àlli wu eggut foofu. Mhm. loolu moo tax am ñoo xam ne dañuy jël seenu dund ñoom jagleel ko alxuraan. Hmm. ba ci prime mi sax loolu nga wax léegi aayaat yi ni muy duggantee ci biir. waaw léeg-léeg gis aay boo xam ne daan mel ne waaw ba ci prime mi nga xam da ngay gis euh, moo xam ne. Mhm. kii day jël aaya bi firee nii kii firee ko nii. Mhm. te kenn ku ne ni mu déggee euh, mënoo ko caa dindi ndax ni baat bi ni baat yi tëggoo la. Mhm. am na ñu def tafsir alquran bil quran. ba tey yooyu yëpp ci ci façon ci jagleel alxuraan la. ndax bokk na ci ay jagleem ba tey mooy téere boo xam ne dafa am yeneen xam-xam yu yu yu aju ci moom. Euh, euh, rasmu bi ñuy bëgg waxtaan benn la ci xiraat mhm. benn la ci njàng mi waaw nja njàng mi ak yeneen i yeneen i xam-xam yoo xam ne yu yu yu yu gaw alxuraan la wër ko nga xam ne euh, da masalan da ngaa war a jàng alxuraan ba man ko soog a jàng yooyu xam nga lu mel ne rasmu tey nga xam mooy ni ñuy bindee alxuraan kooku da ngay jàng ba mokkal. ma fàttali ne rasmu mooy écriture pour ñu ko. écriture waaw mooy bind bi waaw bindin yi ah, xat bi rek waaw. waaw mi ngoog mhm. rasmu mhm. benn la ci fànn yi nga xam ne ñoo wër alxuraan. xiraat benn la ci tajwid noonu. Hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yeneen yu xam-xam yoo xam ne ñoo ko ñoo ko gëw. Euh, daanaka mat na juróom-ñeenti juróom-ñeenti juróom-ñeenti xam-xam waaw juróom mbir yoo xam ne yëpp ci alxuraan lay traité. loolu itam yaakaar naa ne ak jagle la. Hmm. xaw ma benn téere boo xam ne am na beneen xam-xam buy ñëwaat di wax ci ci ci fànn boobu. déedéet ay naa naa naasix ak mansuux. Hmm. makki ak madani ak yeneen ak yeneen daal bari na daal yu aju ci biir yoo xam ne. Euh, macha allah euh, ak jagle gu rëy rëy la am. mbiri suñ borom ci ne. waaw maanaam sëñ Moussa ñu bari yenn borom xam-xam yi dañuy wax ne. Hmm. téere bi gën a am démocratie am demo nekk démocrate mooy alxuraan ñu ne lu tax. Hmm. ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Hmm. alxuraan ci moom la wàcc. waaye liñ ko ci tudd néew na waaye boo seetlu liñ tudd yonent yàlla Moussa. daf daanaka ful def na ko fukki yoon ak juróom wala nangam. Mhm. am na sax ñu naan kaadal quran an yàkkoon a muusan. muusa yéen waaw mhm. léegi kon li mhm. ngay jàpp mooy kon euh, téere bi daf xatalul dafa yaatal parce que kin ko wàccee ci moom sax daanaka ñeent yoon lañ ko ci tëdd li ci des lépp. xay ay xisas la yoo xam ni. dëgg la ci loolu loolu mooy wane. <coughs> dëgg la maanut maanute gi nekk ci. <laughs> waaw suñu borom daf koo wax ne nahnu naqussu alayka. nabaahum bil xaq. nahnu naqussu alayka ahsana al yeneen ak yeneen. maanaam yi ma lay nettali nii pour nga mën cee euh, dëgg. Mhm. ba xam ne man li ma lay wax lu wér la. Mhm. ba xam ne itam euh, fi ma jëm ak yow fu baax la. loolu la yàlla wax yonent loolu la yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca la ko nettalee Moussa nettali ko. Isa nettali ko Ibrahima fam jaar ak Namruus nettali ko keneen ak keneen ci yonent yu bari. nooxi nag fam jaar ak aw nitam xissa yooyu yëpp mu andi ko pour li nu sabbita bi fu àdd ak kese ngir sa xol mën a dëgër sa xel mën a dal. Mhm. nga xam ne fu fa ma jëm yow fu baax la. wallaay loolu. Euh, kon alxuraan mënta mënta mënta xatal. ndax bu fekkente ne la tàmbalee ci aadama ba ba ci moom dafa rassembler lépp. Hmm. kooku ta xatal kooku fokk mu fokk mu yaatal. fokk mu yaatal te fokk mu tudd ñeneen. te dana génn nation yu bëree bëri. ñëpp ngi ci ñëpp ngi ci biir. Hmm. ñëpp ngi ci biir macha ah. allah. est-ce que rasmul xuraan dafa am ay ay ay funuun wala benn rasm rek la wala dafa am ay rusum wala. waa rasmu dafa am añu rasmul osmaani mhm. mooy euh, ni ñu miine ñu di ko bindee alquran xam nga rasmu dafa am rasmul imlaa'i ak rasmul osmaani rasmul imlaa'i mooy ni ñuy bindee langue bi ci boppam rek en tant que langue arabe. Mm, ni muy dikkee rek nga xam ne. foo dem journaliste ba noonu la koy bindee. docteur ba noonu la koy bindee keneen ak keneen noonu la koy bindee loolu mooy yax bi <coughs> loolu mooy rasmul imlaa'i nga xam ne jëmmi langue bi moom noonu la mel. ok nga ñëw ci rasmul osmaani nag muy beneen jagle ci mooy alquran nu ñu koy bindee moom muy jagleek boppam. Hmm. loolu moo tax bu njëkk bi bokkut ak bële dafa am yu baree bari ci ay baat yoo xam dañ ko wuuteel xam tey lu mel ne as salaat waa qiimu salaat hmm. salaat bu ko doon bind tey hmm. ci arab bi kese kese rek laam alif laay def ak ak waaw laam saad laay def def laam alif def taagoo xam ne day teg ñaar ñaari tomb ci kaw léegi bu dee ci alxuraan nag damay def saat def def laam def ak waaw waaw waaw teg teg ak alif ci kaw. xaw mel ni ku bind salawaat. mi ngoog mel ni salawaat. waaw loolu ci ci mooy loolu mooy arrasmul euh, moo wutale arrasmul imlaayi ak arrasmul osmaani. Mhm. arrasmul osmaani nag mooy dañuy wax ni mooy euh, ni Seydina Osmaan radiyallahu anhu gisee ni noonu la war a bindee alxuraan maanaam moom baati alxuraan yi nii la jàpp nii la war a tëddee. mu bind lu ci ay mushaf Euh, validé ko yónnee ko ci ay dëkk ay misra ay iraq ay feneen ak feneen ci lëkk dëkki lislaam yu mag yi pour euh, njàngum alxuraan na mu fa meloon nga xam ne kenn ku ne parce que nu la neex jàngee nu la neex mm-hmm. bindee mm-hmm. léegi nag ñu wutal ko euh, régal nag ñu xam ne nii la ñuy bindee bu mm-hmm. koy binde ti nii nga koy binde bu dee ci alxuraan bu dee ci langue arabe yaa noo ko binde baax na mais bu dee alxuraan ngay bind moom boo dee bind asalaata fokk noonu ma la wax noonu lay noonu lay dikkee ak ak baat yu baree bare yoo xam ne ci biir Euh, alxuraan dafa wuuteeg ci ci arab rek boo ko doon bind day wuuteeg. Euh, kon est-ce que kon mën nañoo wax ne su fekkee dégg naa la sëñ Moustapha Guèye. Mhm. kon mën naa wax est-ce que mën naa la mën naa feddali li nga wax ne kon euh, lu ko arab bind ko firiwul na yaa ngi bind alxuraan. déedéet sore nañ. waaw même bu fekkee am na ay xuruuf yi danañ nuroo fii. maanaam texte texte teg arab yi moom ñoo koy bokkale. ndax ah. xam nga alxuraan lépp ci arab la. Mhm. kon boo dee bind arab daanaka arab yéene woon ci alxuraan rek mooy ñëwaat <coughs> mais ne ci biir baat yi ni mu composé woo mm-hmm. alxuraan am am boppam goo xam ne arab yi kese yi moom amuñu ko amuñu loolu foofu la am ak jagle ci biir bi waaw ci biir téere bi foofu la am ak jagle goo xam ne moom euh, boo ko génnee rek boo ko génnee rek da ngay dellu ci arab normal ah. da ngay dellu ci arab normal mais arab yi loolu mooy sew-sew bi loolu mooy sew bu de ci ci alxuraan nag mu am bindinu boppam moom woo xam ne euh, yennati baatam de du yëpp yennati baatam noonu lañ koy bindee moom ak jagleem la noonu lañ koy bàyyi. kenn du ko laal kenn du ko laal li ñuy wax tawqiif yi mooy loo xam ne noonu lañ koy bàyyi kenn du ko laal na nga ko fekk rek noonu nga koy bàyyi xalaat dugg ci góorgóorlu dugg ci jéem a indi sa kii dugg ci intellectuel dugg ci ni nga ko fekk daal bàyyi ko lu mel ne Kaaxa yaa ayn saat ak yooyu mi ngi noonu yooyu noonu lañ koy bàyyi noonu lañ rek noonu nga ko gisee daal noonu da nga koy bàyyi booy jàng boo ñëwee ne saad wal quran di dikri jàllal. wala xaaf xaaf wal quran <coughs> al majid daal di jàll yooyu ay ay ay ay ay ay ay ay tawqifiyaat la maanaam maanaam ay jagle la yoo xam ne ba ko noonu bu laal hmm. yooyu bokk ci rasmu bi kon akay ah, ci rasmu bi la bokk ah d'accord ci xale bi maanaam bu koy bind bu dikkee noonu la mais mais bu ko bindee woon na ne nu bokkut ak ni ko rasmu bindee dañ ko wax ne yàq nga ko ah. kon ci rasmu bi lay bokk fakk mu bindee ko ni ko rasmu bi indee rasmul osmaani ni mu ko indee noonu nga koy bind ñu xaaj ñu soog a xam ne li nga indi wér na bu du loolu dañ la koy delloo. Hmm. loo loo gisee xale yi maanaam xale yi jàng alxuraan. Hmm. Eh, am ay juróom-ñaari at di dugg juróom-ñett jàpp fukk fukk ak ñaar di mokkal alxuraan ak alxuraan ni mu toll alxuraan sëñ bi dugal ko ci dënd. yéen ñii jàngalekat yi loolu xanaa tawfiqul ilaahiya moo ci dugg wala waaw waaw da nga maa fàttaliwaat benn ci jagle yi ma doon lim te jeexut. Hmm. boobu def cee bokk. maanaam ni mu baree lu tal noonu nga mën koo mokkal alxuraan dong la. waaw loolu loolu man loolu. keese nag wala xad yassarnal qur'aana li dhikr fahal min mudakkir amut lenn lu tal ne moom loo xam ne mën nga ko mokkal <clears throat> ñaari paas képp bu ñu la ko joxoon ci journal fii nii la mokkal ko mën nga ci am juróomi at du mokkal. da ngay réciter di di nga ñëw mokkal nangami junni baat kenn xamu nu mu toll loolu ak ak jagleem la bu ko yàlla jagleel maanaam mën a dem ci dënnu doomu aadama lépp tàmbalee baqara ba naa si nit mën a toog tariku ñun xale yi ñuy yor da ngay gis koo xam ne boo nee mokkal na dangay ngay invité ay waajuram ñu ñëw toog bokkut ak conférence bu mag ba ca mbedd ma. Mhm. ci biir daara ji ñu organiser bis boo xam ne waajur yi ndongali ñooy ñëw indaale ñi leen doy ci alxuraan ñoom nga jox leen ndongal leen acca. mu xëy tàmbale bàyyi koog bàyyi koog ñoom mu xëy tàmbale bàqara jëm naa si léeg-léeg balaa heure bi quatre heures mu eggal léeg-léeg bu dee ko xaw a yéex tuuti six heures mu eggal tàmbale bàqara ba naa si tari lépp bu loolu paree nag foo ko cuq moo dem. foo ko moom koy day tàmbale macha allah tey tàmbale ci bopp wuti suuf rek. saa mu tabbi loolu loolu ak jagle la. loolu moom jagle pire la loolu jagle alxuraan la ndax loolu yombul. téere bu toll noonu mën a ci dënn xale bu ba 10 ans dëgg yàlla loolu amut ci amut beneen beneen beneen téere boo ko buñ mën a mokkale noonu amut. bi la méthodologie bi ngeen di jàngalee la. jagle déedéet du du méthode. wala loolu jagle waa ci dafa bokk jagle alxuraan <coughs> loolu dafa bokk ci jagle alxuraan. tey jii boo ma joxoon ab journalu arabe tey méthode bu ma mën a am pour ma jël ci benn xale mu mokkal ma ci benn paas <laughs> ci journal bi. wax nga dëgg du mokk mukk. wax nga dëgg de waaw du mokk mukk. mbokk yi ma fàttali ne ñu ngi fii ci 2STV di waxtaane wàllu alquran ci weer wi nga xamee ne moo di anniversaire am tey nag ñu dalal fii Serigne Moustapha Gaye ma fàttali tamit ne jàngalekat la di nekk yore daara alxuraan bu mu tuddee Miftaaxu Nasr hmm. euh, Limasa Miftaaxu Nasr ma laaj ma ma jàdd foofu door ñëwaat ci <laughs> Miftaaxul Nasri làkkale de victoire. waaw xam naa loolu waaw man kay ceeb yi ndimbal. Mhm. Ah, di tàllal yoo xam yàlla rek di bëgg mu dimbaleen fu mu toll rek. loolu moo tax ñu tuddee ko miftaaxul nasri bëgg ndimbalul yàlla toujours muy dikk ci suñu kaw ak jullit miftaaxul bisri am na de mafaatixul bisri waaw mafaatixul bisri nga <laughs> baal ma mafaatixul bisri waaw mafaatix mu ay ay clé ah, ay ay caabi la clé waaw <laughs> man nag laa mu nekk jamono bi mu nekk jamono bi yow nag yow da ngaa def benn miftaax man damaa def benn rek waaw d'accord <laughs> tabaarakallaahu alors ah, ci ci ci rasmul quraaniya boobu rasmul usmaaniya bi nga wax léegi nii mhm. kon boobu mooy bi daj mooy mooy bi nekk euh, al alamul islaami boobu lañ fi miin al alamul islami monde islamique presque boobu lañ fi xam. nu ko xale bi nu ko xale bi di binde euh, ni mu koy binde mooy presque. ni day mokkal ba pare. ni nga ko koy joxe mën na sax di bind te du mokkal. te loolu ah. sax mooy yoon wi. ah bon nit xale daa war di jàng bind te fekk mokkalagut. ndax xam nga maanaam tey li ngeen bëgg a def bu nekkee ci bu nekkee ci jongante tey. Mm-hmm. lu mel ne 2S ngeen war a def li ñu war a def. C3S. Mm-hmm. Euh, c boobu li ñu mm-hmm. war a def. seet ngeen baal ma c 3 léegi ci loolu. su fekkee dafa am al musaabaxa. musaabaxaat ay rawante. ki nga xam ne dafa mokkal alxuraan moom ba mokkal ko di bind. ak ki nga xam ne moom day day bind waaye mokkatul mbaa kay du ko raw ko. ah kay ki mokkal di bind kooku sax moo mën a bokk. ci ci concours bi xam na xëy na mm, da nga ci eh, accès ci woon mais concours bi ku mokkal moo ci mën a bokk ndax fi ñu lay jox ne la bindu ko doo ko xool ah dañ lay surveiller doo ko xool très bien loolu laa bëggoon mu ku mokkalut mun ko lool ah, loolu laa bëggoon mu leer kon léegi maanaam ñu koy bind ñëpp a mokkal ñëpp da ngay mokkal kay ba ba wan ko gannaaw soog a mën a ñëw bokk moom mais ku mokkalul mënu cee bokk même ku ci bind ku ci dugg te mokkaloo boo demee ba ci biir da ngay da ngay arrêté doo dem waaw ñu bari dal na leen hmm? ñu bari dal na leen dugg ba ci biir ñu jox leen foo xam ne mënoo ko mënoo ko mënoo ko bind mënoo ko tari sax waxuma di ko bi xam nga bind moo gën a jafe tari xam nga loolu hmm? bind moo gën a jafe tari ah déet waay ah waaw bind moo gën a jafe tari nit mën naa mokkal dara ta tari ko mu jeex léegi mais boo ko joxee ko bind ko tey mën naa jafe lool mën naa am sax du dem waaw xëy na xam nga bind bu fekkee dafa ànd ak maas xam bu àndul ak maas mais bu ànd ak maas moom dafa am dafa am nax bu ci bu muy bu muy yóbbaale ñaar yëpp ndax xam nga tari ba itam àndoon na ak waaw ngay tari yaa nga doon maas. waaw bi naka jekk dafa ñëwaale woon. waaw naka jekk moo tax booy bind itam day ànd foog mu ànd ak maas. ndax masque yi xam nga rasmu bi dañuy wax ni rasmu saxaaba. maanaam rasmu bi ñu doon waxtaanee nii léegi. mooy li nga xam ne moom la fi saxaaba yi bàyyi woon. ah mooy boobu noonu mooy boobu nga xam ne amuti amuti tomb amuti masque. Ah. Ah, amut ah, alif yu aj ah, amut dara fil bidaaya fil bidaaya waaw ci jamono Seydina Ousmane bañ koy bind hmm. noonu la meloon noonu la meloon amut tomb amut masque amut alif gu aj ca kaw amut dara loolu euh, ñi tudde ko rasmu sahaaba léegi nag bi taabiin yi ñëwee ñi topp ci ñoom hmm. deuxième génération bi bi ñëwee ñu gis ni lii ñëpp muñ ko jëriñoo hmm. ngir nit ñi mën ko jariñoo fokk ñu xàll ci waneen yoon ku ñuy wax abul aswadi du ali wax na ni Seydina Ousmane jàngal na ko ñoom ñoo fent masque yi ak tomb yi. tabal ko ci waaw ko ci bañ mën ko jëriñoo. ok ndax bari na baat yooyu lu mel ni rab bi tey bu fekkee amutub tomb maasuñ ko noo koy jànge alhamdulilah rabbil alamin nga dindi nga dindi tomb ba dindi masque ya. waaw nga dëgg kenn mën ko jàng. waaw doo xam rab la doo xam doo doon wala ran na sax kay wala ratta. wax nga dëgg kii bi lu moo tegee ci kawam. moo tax taabiwoon ñoo fent tomb yi ñoo fent masque yi di sidda di di di di di masque lonk di def yooyu ba nga mën a ñëw xam ne fii masque lonk la xam ne fii dafa sidda xam ne fii dafa masque ci suuf yooyu ñoom ñoo ko ñoo ko fent moo tax yàlla na yàlla fayal. kenn amin amin yaa rabbal aalamiina mais ñun ñun bi jàng bi ñuy jàng ci daara ji. Mm-hmm. bi ñuy jàng arab dañ doon dafa am benn ci sujet yi ñuy doon jox. Mm-hmm. bu tudd shaklu. xaw ma baat boobu maanaam ñu bind texte bi. Mhm. mais texte bi kenn du ko maas. waaw léegi nag yow yaay ñëw maas. ko mooy maas ko waaw boo koy maas fokk nga xam naxwul arab yi nga am grammaire. a waaw kay bu fekkente ni. Mhm. arab moom arab yu ñu maasut moom. pour nga mën koo maas wala nga mën koo jàng da ngay jàng naxwu. Ah, ala kulli da ngay jàng alxuraan boo mokkal nga xam ne mokkal nga ko ci téere ba xam ko noonu kooku moom bu ñu ko bindee jox la sax même bu ñu maasut yow mën ngaa ñëw maas ko mën ngaa bind fee mbind mu wow koŋ moo xam ne amul benn masque nga jox ko benn xale boo xam ne mokkal na bindkat la da lay maasa lépp mais bu dee arab kese bu fekkente ni eh, jàngoo jàngoo naxwu doo ko mën. Hmm. doo ko mën a jàng. doo mën def chaque doo ko mën a jàng ndax masque yi doo xam fan lay tege. grammaire bi moo lay indiqué nga mën a xam ne lii daa war a lonk lii daa war a maas ci kaw lii daa war a maas ci suuf. loolu day fekk nga jàng ko démb. ay jar wal majruur rek. mudaaf ak mudaafu ilayhi mudaafu ilayhi nasab ak nangam yooyu yëpp. Mm, ay rafoog euh, xafdoog jasam ak yooyu yëpp boo boo jàngut grammaire mënoo ko xam. waaw léegi loolu mooy tax nga mën a tiim mbind muñ maasut nii di ko jàng mel ne ku ku ku jàng lu mokkal. Mm. mais dafa am ñuy wax ne. Euh, alquran dafa mel ne boo koy jàng ba mu yàgg. Mm. dafa mel ne bokkul ak sunu grammaire bii nii nii nii nii. Ah, xaw ma nag loolu la ko gars yi waxee noonu daal. waaw grammaire bi dañ ko tibbee ci alxuraan. Mhm. sunu grammaire bi ñuy jëfandikoo. Mhm. ci arab dañu wax ne ci alxuraan lañ ko tibbee. ci lañ ko jëlee kon mënuñoo wuute. alxuraan doo fekk mukk lu war a nasab mu maas ko lonk. Mhm. wala lu war a jar mu maas ko ca yat ca kaw déedéet. lu ne fa mu war a maas ko mu war a nekk nax naxwiyan foofu boobu dem fa nga koy fekk. xam damaa xamatul sóoratul nuur la wala. Mm-hmm. ci saar yu wala sóoriwul foofu. Mm-hmm. awit tifli lazina lam yasaru lu tax waxul awit at atfaal xam nga alxuraan yenn saa yi da nga ciy uh, gis yu mel noonu waaye xëy na tamit loolu. Mm-hmm. beneen beneen mbir la. waa xam nga tifl ñu ko waxee. wala dafay nekk masdar bi yóbbaale. waaw dafa dafa du xale bu taxaw ne. mi ngi mel ni nga ni gone rek gone yi ci réew mi dañ leen war a aar dañ leen war a aar. <laughs> waaw gone yi ci réew mi dañ leen war aar gone yëpp dugg na. waaw ah, te pourtant baatu gone nga wax. benn gone rek nga wax de moom. <laughs> waaw <laughs> gone <laughs> waaw te wal ma gone gee boo doon wal ma gone gee ngay wax. waaw wax nga dëgg de kenn la. Mhm. bi nga ne gone yi ci réew mi itam gone nga wax ba léegi de sensé woo ko de. déedéet waaw. waaw alxam dafa dafa bëri yu mel noonu. Ah, dafa bëri sew sew yoo xam ne sew sew yoo xam ne boo ko xoolee. Eh, macha allah moom daal moom géej la. waaw ta ta tawarkal la. Mhm. kon nag mbokk yi ma fàttali ba léegi ñu ngi fi ak ser Moustapha Gaye. Mhm. alors Moustapha ci loolu léegi nag kon musaabaxa boobu bu fekkente ne dégg naa leen il faut mu am ñu raw am ñu am ñu xaw a féete. waaw musaabaxa bi euh, c s moo ko moo ko taxawal. Mhm. société bu yëngu ci wàllu aluminium ak euh, yu demee noonu. Mhm. Euh, di doomi daara El Hadj Serigne Seck. Mhm. di yor daara doon jàngale alxuraan baayam di jàngalkat alxuraan. Oh, mu doomu daara. maanaam ci la bokk yëngu ci commerce ba yàlla defal ko ci ndimbal mu dem ba xam ne ci gis-gisam mooy mbind mi ngi dellu gannaaw. maanaam mbindum alxuraan mbindum alxuraan mi ngi dellu gannaaw gone yi ñi ngi mokkal ñi ngi tajwiid macha allah rafet na alxuraan ji mi ngi mokk comme ni nga ko waxee léegi bu gën a gaaw sax na mu daan mokk ci at ci ci ci ci ci bàyyi ak maam ya mhm. mais nag bind mooy dem mooy dem ndax bindatuñ hmm. bindatuñ te bind nag mooy téye alxuraan dëgg dëgg dëgg dëgg alxuraan ku la gën a mokkal gën la ko jekk mooy ku la gën a mën a bind yaa di bind di bind ay kaamil di beq di bind ay kaamil kooku mooy ki ko jekku dëgg moom nga xam ne foo ko cuq mu dem du junge du gag du jaawale. waaw nga xam ne am gang foore lay doon. gang foore waaw foore complètement mais nag bu fekkente ne mokkal mokkalu kese la ñuy wax kooku la ñuy wax mu jigéen. <coughs> ah bon <coughs> kaag mu jigéen. mën ngaa mu lay bàqara ba naa si tari mu jeex. kooku mooy kaag mu jigéen jigéen. waaye boo bindee yàq wala nga runge wala nangam ndax bind beneen affaire la. waaw bind yombul de. bind beneen affaire la. moo tax El Hadj Serigne Seck gis ni mbind mi kat mi ngi dem gone yi euh, wax dëgg yàlla góor euh, góor lootuñ ci. Hmm. te mbind mooy téye alxuraan nag. léegi moom euh, Serigne Seck moomu dafa leen a bëgg ñaax. Hmm. xale yi di bind yi kaamil. alxuraan di fi alxuraan man dafay des kenn mënu koo dindi. dafay des incha allah waaw hmm. kaamil yi dafa bëgg xale yi di farlu ci mbind mhm. gannaaw ba mu nemmeekoo ne mbind lee gars yi dañuy jàng rek parce que léegi yi tamit dañuy bind xam nga ordinateur da ngay ñu may la ay waaw loolu dafa bokk ci yi gàllankoor bu mbind mbindum loxo yooyu mbindum machines yi daf ko daf cee bokk waaw ah, vraiment mbindum euh, waaw dafa yu bare bare dafa ñëw jeexital ci ni nit ñi doon dunde ni nit ñi doon dunde nag da ci am loo xam ne dafa ëpp ëpp fa bàyyi mu dem dañ ko war a garder dañ ko war a garde mbindum loxo daf caa bokk Mhm. aar la histoire la lu bëree bari la. ak gis naa naar yi di ko def. waaw ñoom dañ ko fonk lool dañ ci dañ ci ci am ay fannaanoon ay ay ay ay ay ay eh, xam ni koy waxee maanaam ay bindkat yu mag yoo xam ne dañ leen di dañ leen dañ leen di tudd. culture la waaw culture la léegi nag loolu bu fekkente ne bëgg nga ko sàmm. loolu moo tax concours bii yaatal mbindum alxuraan mi loolu moo tax mu jóg maanaam sàmmaat mbind moomu delloo siwaat xam nga da ngaa gis ñu ni yaatal mbindum alxuraan. Mhm. waaw moom moom laa gis ñu bëri ko yaatal. waaw maanaam mbind mi gën a yaatu. mi ngoog néewuñu dekkal ko ndax ndax deewut ba dee complètement ndax am na lu des. Mhm. wala delloo ko ndax demut ba jeex wala yu demee noonu yaatal lañ wax. mooy am na tuuti lu fi des waaye li fi des boo ko comparé ak na meloon démb dafa suufe lool ba jéggi dayoo léegi nag yëkkatiwaat ko ba mu ci niveau ba mu nekkoon moo tax concours bi moo tax yaatal mbindum alxuraan juddu bëgg gën a xiirtalaat xale yi ci ñu ñuy bind ci daara yi waaw waaw xam nga kaamil yi ñuy bind sax baax dëgg baax na waaye yu ci bari xëy na jàngiwuñ ko. Mm-hmm. mais nag nga mën a bind mën a bind alxuraan. loolu dafa bokk ci li nga xam ne mooy sàmm alxuraan ji bokk ci li euh, garde gi yàlla wax ne moom la koy garde mm-hmm. yàlla bi mu koy garde itam mu koy jaar. parce que li nga mokkal ba man koo bind te doo ko xool. Mm-hmm. tey bu ñu ko taaloon nga bindaat nga bindaat ko. kooku kay kooku kay bokkut ak ki mokkal te mënta bind dara. wax nga dëgg de loolu loolu moo tax mbind mi war fee des. loolu kët loolu kët farata la kët. ci nit ki farata la lool macha allah. wax dëgg yàlla nag muy concours boo xam ne bu am am solo la. bi mu juddoog léegi yàggut xëy na mille 2018 mooy première édition bi. Mhm. waaye boobaak léegi ñun ñi nekk ci daara yi di jànkonte gis nañu ni euh, mbind mi mbind mi am na amélioration bu baax a baax mhm. xale yi seen bopp léegi ñoo la ciy soññ waa léegi bu ñu bindee kaamil yi ba noppi yooyu ñuy bind mhm. ñu koy def dañ koy dañ koy def ay mushaf denc ko wala dañuy bind. wala dañuy bind kaamil yi am na ci yoo xam ne am na ci yoo xam ne dañ koy móol di ko di ko di ko jànge tey boo demoon uh, suñ bawal gee tey uh, ñu baree bari kaamil yi loxo yi moom la ñuy binde ku mel ni sëñ Abdou Lahad suñu Sohaybu macha allah bindkat la ñu ngi koy ñaanal yàlla tawféex yàlla dolli ko fan damay ko wér bindkat bu mag la macha allah mbind mu rafet sëñ Abdou Lahad Sohaybu boo demoon ab kaamilam tey dañ koy móol di ko di ko jànge ku demee ne sëñ jëmmu siise muy borom photo yi ngay seen nii mhm. mooy bindkat bu mag la mhm. ci loxo ci loxo ñun ba ñuy toll ba ñuy jàngal xaan daanañ jàngi ci ci ci ci mbindam ak ñeneen ak ñeneen yoo xam ay bind ku mel ne sëñ sëñ jiile abdoulahat moom it la waa kër sëñ Mor Mbay Cissé Jurbel bindkat la waa Gede ay bindkat lañ ak faneen ak faneen ak faneen. te ka gaa ngi koy jàng xale yaa ngi gaa ngi ciy mokkal alxuraan. ciy mokkal bu baax a baax kaamil yooyu ñu bind dañ koy móol di ko di ko di ko di ko jànge di ko jàng donte kaamil yi yu machine yi naar yi di bind bari na macha allah tasaaroo na ci réew mi ndax mhm. dafay yàgg mhm. euh, ndax kaamil loxo yi bi ñu amee moyen pour mumal ko yàggut mhm. yàggut moo tax yee dafay yàgg ba nit ñi miin ko xëy na caaxaan du ko fi jëlee waaye teewut nu réew mi ñu ngi koy mool léegi di ko di ko tasaare même C3S ci concours bi ñi ci raw da leen di bindloo ñu bind ab jisu amma wala tabaraka wala xat samia eh, mbind mu rafet ñu defar ko ba mel ni mu war a mel ñu tasaare ko première édition bi séddal nañ ci 7000 7000 euh, exemplaires. juróom-ñaari junni juróom-ñaari junni exemplaires. Mhm. séddal nañ ko ci te ba léegi ñu ngi mool di teg. léegi léegi ci mbind moomu mbind mhm. moomu nga xam ne moom ngeen di def noonu. set mhm. trois léegi. ñi gën a rafet le la ñuy jël. walla wala wala wala. waaw ku mbind mi dafa may ay nattuwaay. Ah, waaw yooyu la laa bëgg ñu wax ko nag parce que xale bi buy bind. Hmm. te bala moo dem ci saaba bi war nañ ko wax ne ko est-ce que du waaju ne ko lii ko bëggee wala wala wala lañ koy. dañuy dajale yi rek na leen. ñett dafa am ay nattuwaay yoo xam ne ci lañ lay nattal. nattuwaay hmm. yooyu rek ku ca raw yaa yaa yaa yaa jiitu bi ci njëkk mooy alxuraan ju mokk. du am mokkal alxuraan mokkal alxuraan nga nekk xaafis mokkal alxuraan doo doo jaxase doo runge doo bind fu la bind loo ñaareel ba mooy arrasmul osmaani bii nga xam ne moom la ñuy promouvoir alamu islam bépp paroxe moo fi nekk dañuy bëgg boo ci booy bind nga dëppook mbind moomu nga bañ a bind mbindiin wu wuuteeg woowu. ah mu nuróo mu nuróog moom boo bindee beneen beneen beneen alxuraan boo xam ne arab rek la bokkut ak rasmul osmaani yi dara boo ñëwee doo jàll. Mhm. waaw beneen bi ci topp mooy na rafet dëppook mbindum euh, mi xam fii ci réew mi tam rafet. mbind mu rafet ci Sénégal mi ñu xam. suñu hmm. mbindum ndox daal. non bu jekk waaw araf rafet araf yu xool. tomb tege fa war a tegu arafu de nuru la mu war a doon mu doon ko. mu nekk lu waadix. bañ a rajjaloo bañ a yéeg bañ a wàcc tolloo normal araf yëpp xippi xoole araf wu ne nuru lam doon nga doo doo gàkk doo jaaxase te doo génn rasmul osmaani yooyu lañ ñett ñetti nattuwaay yooyu lañ am. Hmm. benn bu ne am na point yu ñu la cay may yoo xam ne boo ci jiitoo nga doon première ka ca topp topp ca ba keroog ba ca ba ca ba ca ka ca mujj. noonu lañ koy hmm. toftalee. maanaam am am na am na tomb yi ngeen di tomb ne. maanaam ay teg ay tegale ne yii lañ bëgg ko ci jaar. waaw dafa am ay critères yu ñu teg. Ah, waaw critère noonu bu defee nii. noon la war a tëddee. waaw ka ca gën a jekkale ca loola. waaw kay mooy jël pay. ka gën a matal ñett ñetti ñetti ñetti sart yëpp. Mhm. xam nga mën ngaa man benn bi. Mhm. mën ngaa mokkal alxuraan lool. Mhm. ñëw mais mënoo bind. mën ngaa mokkal alxuraan mën a bind waaye nag dëpp bu toog arrasmul osmaan mën ngaa mën a arrasmul osmaan yi mokkal alxuraan waaye nag bi nga bindee woowut yàq ya daa bari da ngaa runge dem fële mhm. jóge Ali Imran dem yeneen saar dugg feneen dugg feneen nga jaxase ko te li ngay bind doo ko xool te li ngay bind ko xool kon da nga am ñetti da ngay bind nii rek mais doo xool dara dañ lay jox fi ngay bind ah waaye yow maanaam yow muy bind yow doo déedéet doo xool moom dañ lay surveiller dafa am équipe boo xam ne ñooy taxaw di xool di la du portable du dara du amul fenn fooy xoole moom daal bu ñu leen yow jox la sa kayit ni la barab sangam ngay tàmbalee ba barab sangam may nañ leen nangam ci temps ayca. léegi nag sa compétence lay yóbbu. d' accord mais noo gisee yenn xeetu yenn xeetu mbindin yi wala loolu mbindum wolof la wala lan euh, damay gis ñaare. Mm-hmm. Euh, ni sax xaw na koo nuru. ci ci mbindu uh, xasida yeeg yooyu. ay mm-hmm. ngandi keef yu mag a mag a mag yenn yi saa yi am ay com comboñ. Mm-hmm. xeetu mbind moom wala loolu moom suñ mbind mi la ñun ñii. wa waaw loolu xam nga mooy mooy mooy aare gi nga doon wax léegi ci mbindu naar yi. Mm-hmm. da gis benn dugg fenn gis ñu teg benn photo mbindu mi jalgati. fii def waaw gi mu wër def. loolu fan la. aar la lu rafet la. loolu itam dafa am ci sunu sunu sunu mbindiini wolof réew mi waaw da am gis nga léeg-léeg bind wolof boo xam ne bi ay def ci ay comb da ciy am da ciy am ñu ko man ñoo xam ne te day jekk lool euh, buñ ci jalgatee ba bàyyi macha allah boo ci jàng doo day rafet lool mm-hmm. waaw loolu fa beneen bindum aar la mm-hmm. waaw dama damaa gis tamit na ci 316 C3S euh, euh, mm-hmm. mais lii na solo ah. man kët lii kët jar na gaa yi dem mokkale alxuraan ah, am na solo am na ay te ñëw ñëwagoo ci neexal waaw moom laa moom laa tiim nii kay. waaw <laughs> maanaam yéen kenn ah, ah ci dàqale mbindum alxuraan mokkal alxuraan. Euh, critères yi mu respecté ko. Mm-hmm. lu mu gàtt gàtt dana benn million juróom. déedéet loolu mooy édition yi njëkk yi loolu weesu nañ ko sax. ah lépp 6 millions 500 ngay am boo jëlee pay. waaw te robo dong ngay bind. te maa ñëw bokk ci waay. ah bu la ne <laughs> ñun de dañ ko bañ ba wutaluñ ko a sax far. ah ku bëgg ñëw rek. foo foo mën a bind critères yi ñëwal mën ngaa bokk. boo déggee ni ñu ngi bind daal daal di daal. il faut que nekk kattan am na <laughs> waaw loolu de la ñuy wut nag. waaw xam nga loolu lañ bëgg xale yi gën cee góorgóorlu leer lool <laughs> xam nga maa ngi lay wax léegi ni la xale yi. Mhm. ci daara yi léegi ñoom ñooy soññee ci mbind mi. Mhm. da ngay gis xam day jàng baaj ñëw ni la jox ma fooy dama bëgg bind. fekk dafa dégg concours bi dégg na ne eh, daara sàngam ña ci bokkoon. kii am na 6 millions kii am na 3 million nangam kii am na 4 millions moom mu bëgg mu bëgg am lool waaye nag lii mënee su te mokkalu alxuraan itam. ah wa mais dañuy ànd. waaye dama d'accord ci maanaam critère boobu dafa solo. maanaam xam nga ak bind dañuy ànd. Mhm. doo jàng ba mokkal soog a tàmbalee bind. déedéet sa as day dem de. wax nga dëgg. bi ngay jàng toll si jàng di mokkal di dugal ci sa biir boobu ngay ànd ak mbind mi nag di ko jàngaale. d'accord man maa ngi sama daar ay xale yoo xam ne. Mhm. ay yusabihu lañ toll ñuy toll xamante mais dañuy bind. demaguñ fen mais dañoo tàmbali di jàng bind. ah xam-xam écriture. waaw di ko di ko ni ñuy xalima. ak ni ñuy toogee booy bind yooyu yëpp dañ da ko da ko war a pour pourtant lii bu baree ci réew mi. Mhm. da mën nañoo dem ba Sénégal ci boppam am ay kaamil yoo xam ne mën nañu ko tuddee. li ñu naan consommé local. Mm. suñu suñu kaamili bopp yoo xam ne réew mee ko moom. lool sax dañ cee dox jëm. concours bi incha allah dafa bokk ci ay objectif am mooy kaamilu Sénégal. waaw kaamil yoo xam ne fii lañ ko mooy. kaamilu Sénégal boo xam ne day génn tasaaroo ci àddina bi yëpp boo demee Màkka fekk ko fa boo demee Téhéran fekk ko fa boo demee Amérique fekk ko fa boo demee réewum jullit moo dem fekk ko fa. boo demee Turki fekk ko fa. ay xale yu tuuti Sénégal ñu ni kaamil bii Sénégal lañ ko bindee. mu de muy ne ci maktabaat yi nga xam ne foo dem fekk ko fa ci at dem. loolu yu ndaw di ko bindee loolu concours bi loolu dafa bokk ci objectif am ay jubluwaayam loolu da cee bokk. très bien te loolu benn la ci ay jubluwaayam rek benn la ci. kaamil yi di bari ñu ne lii di bari ñu binde ko Sénégal gii mu tasaaroo ci àddina bi. made in Sénégal wow xam nga ba léegi Sénégal euh, ba kaamil bu ñu reconnaître lii mooy kaamilu Sénégal parce que amagut de xamu ko de. xam nga ñun kaamil bi ñuy jàng fii da ngay dégg ñu naan kaamilu Tunisie. Mhm. waaw wala Arabie Saoudite wala ñu ni kaamilu Arabie Saoudite. Mhm. wala kaamilu Syrie. da ngay dem sax booy ñëw ci avion bi ñu jox la kaamil. ni nga loolu eh, seen ñoom seen bind la. waaw seen bind la de. ñun nag Sénégal amaguñ bind moo xam ne moo taxaw lii mooy mbindum Sénégal. pourtant war a mën a loolu dañ cee a liggéey nag. ba mën a nekk ndax Sénégal fi mu ne euh, niveau bi ñu egg ci alxuraan niveau bi ñu egg ci alxuraan ci mokkal koog ci côté yëpp dañoo war a am nag seen kaamilu bopp te loolu C3S mi ngi ci dox bu baax a baax. nga xam ne maanaam waa très non dafa am solo sax li nga wax ni tax sax xale yi nga xam ne ay sénégalais lañ. Mhm. sawar ci xam ne am na produit buy génn ci alxuraan gannaaw bi xale yi mokkalee ba noppi lool c'est dana leen di gën di ñaax également. Mhm. parce que bindub kaamil ñu ne kaamil bii kat sëñ euh, Moustapha Gaye ko bind waaye gis nañ ko dem naa Mauritanie fekk ko ca maktab ba. Mhm. loolu loolu loolu loolu am na solo. waaw loolu day encouragé jàngkat. day encouragé jàngkat ndax. Euh, jàngkat moom dafa bokk ci li koy li koy li koy encouragé mooy luy tasaare ak njàmbaaram. Mhm. lépp luy tasaare ak njàmbaaram rek da koy encouragé. te nag kaamil bi nga bind nag mu dem ci àddina bi wër fii loolu ku ne xam na ni lu baax la. Mhm. tuyaaba jëng ciy am ak lu bare bare nga ci biir. Mm-hmm. loolu moo tax c 3 di dox ci loolu. d'accord lan lan moo waral ci alxuraan parce que tey dañuy waxtaan anniversaire alxuraan weeru koor wi mooy anniversaire alxuraan jaadu na. Mm-hmm. lépp lu njariñam. Mm-hmm. njariñam nag moom day day day day naqaree tënk ci aw waxtu moom. maanaam importance bi alxuraan am am ko ci mucc samax bi am ko ci nit ki am ko ci nature bi parce que alxuraan wax na ci tabia bi maanaam euh, ci ci asjaar yi garab yeeg wax na ci ndox yi mhm. wax na ci ci am na sax saari alxuraan yoo xam ni mhm. ay ay euh, bàyyi ma yi la tudd lañ ko tudd ay ankaboot eh, moo ci bari sax waaw xam nga demee noonu sax lool sax euh, yooyu noonu noonu man nga sax ni bu bu yeneen ti jàllee mhm. bàyyi ma yi ñoo ci ëpple waaw waaw waaw waaw. xorandoom yeeg. waaw namli nag yeeg. waa baqara. Euh, nu mu tuddati ankabuur. Euh, waaw ankabuur jargoñ ak. Mhm. ak yeneen ak yeneen yu bëree bëri macha allah. ak ak yi mu tudd ci biir. yam cey wax yëpp yooyu yëpp di ay xam-xam yu sew yoo xam ne euh, léeg-léeg nga dem ba décortiquer ko maanaam borom xam-xam yi dañ dem ba mën koo trouver léeg-léeg itam mu am loo xam nag dañ koy bàyyi ak suñu borom wa maa yaalamu taawilahu illa mhm. am na ci loo xam ne yàlla rek moo koy xam. waaye oustaz euh, jagley alxuraan ak mhm. njariñam ci aw xeet mhm. moom buñ ko doon wax fi la fanaan euh, téere bii buñ doon wax njariñam fi la fanaan ak li muy def ci nit dafa doy sëkk rek dafa doy sëkk maanaam ku jàng alxuraanul karim euh, li aw li askan wi soxla ci yow danga ko ràmpale waaw bu nekk wax dëgg yàlla li wi soxla ci yow mhm. danga ko ràmpale xam nga askan li mu gën a soxla mooy jikko ju rafet. Mhm. ak nite. nite mhm. yooyu yëpp alxuraan da koy def ci nit. Mhm. ku nite wut wala jikkoom rafetut kenn mënut a jaxasoo ak moom. déedéet histoire bu tàkk mooma. Hmm? Euh, lu xew rek borom jikko ji rafet te alxuraan na bu nekkee ci dënnu nit ki la mu njëkk def moom mooy rukk ko ba mu mokk jikko yi ñaaw yépp lay rukk ba mokk moom mu indi jikko yi rafet indi mën a muñ indi yaatu indi yeneen surtout boo nekkee daara waaw Hmm? ak formation bi ngay jaar. formation lu mhm. nga mën koo dékku. lu ne nga mën ko muñ ku nga mën koo toléré. Hmm? ku nga mën a ànd ak moom. Hmm. situation bu ne nga mën cee dund. dara du la jaaxal. Mhm. nga ñàkk am nga yemale. Mhm. yooyu yooyu da ngay da ngay da ngay da ngay a muñ. yooyu yooyu mooy ki ki société bi soxla mais koo xam ne boo jaaxle dem dem xaru. <laughs> wut fatal doo dóor sa bopp. wala nga wala nga sax pexe pexe yu lëndëm. tabaaraka ngay wut buum takk sa bopp kooku kooku société bi soxla wut kooku. déedéet ah. léegi noo gisee jàngalekati alxuraan yi. Euh, xam nga alxuraan tamit wax dëgg yàlla hmm. est-ce que jàng ko nii kese kese kese tamit donte jàng gi barke la mokkal gi barke la tiim gi di ko jàng barke la lépp ay ci ibaadaat yi la bokk hmm. mais est-ce que tamit baatu afalaa yatadabbaruuna alxuraan hmm. jaaduwut fi ñu toll ni a euh, baat boobu duñ ko koo. seetaat seetaat. ah suñu borom mënu koo <coughs> mënu koo laaj bi. waaw dëgg la oustaz xam nga euh, tadabbur. Mhm. loolu ab niveau la. Mhm. ab niveau la boo xam ne dañ cee egg. Mhm. ki toll ci mokkal ay saar. déet sëriñ si kay la wax xale yi dem ci. tadabbur déet kooku kay ko sëriñ si kay. ndax tadabbur da ngay am yu daje yi ci yow ba pare. da ngay xam day am xam-xam ci yow. da ngay dégg arab normal. surtout dégg naxwu jàng balaaxa ah, eh, balaaxa mhm. xam-xam yooyu day daje ci ba nga xam alxuraan ak waxiinam waaw ba noppi ba noppi nga soog a mën a ñëw nag ci tadabbur ndax bu fekkee dangay jël loo xam ne dañ ko askanale ca bi yéefar la jëm nga askanale ko julit bi te tadabbur du mën a baax nga dëgg de fekkee la ngay jël loo xam ne dañ ko jagle yonent bi sallallahu alayhi wasallam kese te wax ak moom waxin waxan dañ caa dugal ñëpp waaye nag moom dong lañ ko jagleel sa tata bur sa tata bur day des kon yooyu foog nga mën a dem ba mën ko am na sew sew de dafa am ay xam-xam yi daje ci yow ma nga dëgg moo tax tafsir bi ñuy wax nii fi mu ne tafsir alxuraan yombut ak a jafe jafe la man ngay firi baat yi nii rek di kii mais tafsir dëgg-dëgg lu jafe la ndax da xam-xam yi ma wax nii danga ko war a amee waaw te te mën ngaa mën ngaa def erreur parce que comme li nga wax léegi ay aayatu waaw jël loo xam ne kaw gi nii rek kaw gi mhm. nii rek da lay jox Maodo Faye te fekk ci man la jëm te yow baati arab yi rek moo dafay la la jox bu fekkee baati arab yi doo nga firi nag da ngay def erreur. nga dëgg de loolu waaye sëñ bi loolu loolu. waaw loolu mooy mooy ay sew sew nag ndax alxuraan dafa bari ay ay xur daal dafa bari yoo xam ne day wax ci turu mbooloo te fekk kenn lay waxal. Mhm. loolu wax kenn te fekk mbooloo lay waxal. wala mu am ay ayatul xuraan yoo xam ne ñam ko lool seen comportement ay yëfër lañu woon. ay yëfër lañu yooyu itam boo ko bëggee. di nga sëq ko xëpp ko ko xëpp ko jullit bi da ngay juum. ndax tolloowuñ ah, parce que ki au moins gëm na yàlla. waaw weesu na yu bëree bëri. waaw donte xëy na tuuti dese na tuuti càggante waaye na foo ko yóbbu foo xam ne weesu na ko nag. wax dëgg yàlla waaw waaw boo ko bëggee nag daal di sëf loo xam ne. yéefar ba nga xam ne moom xamagul kuy yàlla xamagul kuy yonent bi. mosu koo tudd sax waaw nga bëgg leen a tollale même niveau kooku itam da ngay jiw moo tax tadabbur mm. euh, lu dafa laaj ab niveau. d'accord kon kon kon euh, ñoom. Mm. loolu kañ dimanche. dimanche bi ñëw incha allah grand théâtre 9h la ñu woo ñëpp. Mhm. ñëpp rek ñu ngi leen di woo. bu ñuy ñëwee xale yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo bokkoon di final bi ñëpp danañ ñëw. ndeysaan danañ joxe euh, prix yi. Mhm. prix yi nag ren moom macha allah ni ma la ko waxee. ki gagné dana am million millions 500. wax dëgg yàlla bindu robo rek nga am 6 millions 500. Mhm. bu fekkee ku bëgg a liggéey nga wala nga bëgg kii moom da ngay daal di am départ. waaw hmm? fekk fekk nga mokkal alxuraan. fekk nga mokkal alxuraan mën a bind nag. ah bu la neexee daal di ubbi ji daara bu la neexee commerce ji bu la neexee léegi <laughs> loo bëgg a liggéey daal macha allah mën nga cee daal di dugg. wallaay wax nga dëgg. kon loolu ab taxawaay bu am solo la. Mhm. taxawaay bu am solo la boo xam ne euh, C3S ñu ngi koy def. di ko soññee di ko soññee xale yi di ko soññee daara yi te xërëf bi du dara lu dul pour que kaamil yi di gën di bari. waaw xërëf bi dëgg-dëgg daal mooy mbind des bi xale yi nañuy mën a bind. waaw nañuy mën a bind loolu mooy jubluwaay bi gën a mag mooy na fi mbind des mhm. ndax mbind dafa bokk ci doomu aadama bokk ci lislaam bokk ci liy aar alxuraan di ko téye kon moom itam dañ ko war a garder mu mhm. bañ a dem buñ toppee mbindi machine yi rek nga xam ne loxo bindatul ak yeneen ak yeneen yooyu day mujj dem ba dootoo mën a bind ci sa loxo. da nga doo gis bind kat nga dul gis. bind nag bind kat nga dul gis te loolu nag. erreur erreur mëgu pourtant wax nga dëgg ko erreur ko loolu la loolu la seetuwaay seetlu ba tax ni mu yëkkati concours bi. bëgg delloo si mbind. xasatan lil Qur'an. Mhm. particulièrement particulièrement alxuraan ndax alxuraan boo ko mënee bind rek ba mu normal da nga bind mën a bind waaw bu mu xasee normal yi ci des yëpp ñu ñoo normal buñ la bindloo wolof nga bind buñ la bindloo ay arab nga bind luñ la jox mu dem. Hmm. tey tamit euh, daara ji léegi mi ngi mi ngi produire euh, ñu bëree bëri ñoo xam ni maanaam dañuy jàng alxuraan mokkal ko génn fu mel na kokki wala Tiwaawan mbaa Touba mbaa fenn ci daara yi. wala hmm. xel kom bu sëñ Saliou. Hmm. ba noppi am na sax ñooñu suñu borom dimbali na leen ba njàngum àddina mi it léeg ñu ubbeeku ci loolu gis naa ko man ba tey gis naa mhm. ko jàng français après wala nga jàng arabe dem ba nekk sax ci euh, yeneen mbir te loolu nag base bi asl bi mooy quran tey boo duggoon oustaz ci ci école yi mhm. xale yi gën a yéeme ci école bi mhm. euh, mooy ñi jàngal alxuraan moom soog a ñëw waaw man xam naa ci dara waaw ñooñu yow mi nga xam jàngalekat nga xam naa xam naa ci dara ah, ñi gën a yéeme ci ci école bi diir bu gàtt nga tëbal leen ko jàll ci beneen macha allah li fi jaar ba jàll li fi jaar ba jàll dafa diis diisaay boo xam ne du ñëwati woyof waaw alxuraan dafa diis de xawlan saqilan la wax de inna sanulqi alayka xawlan saqilan waratilil qur'ana tartila waaw xawlan saqilan nag fu mu jaar ba jàll dënn bu mu dugg leneen loo ko andilee day mel ne xob ci moom du doon dara <laughs> rasulullah wax day day moo tax classe bu ñu rek macha allah dañ koy daal tëb jàll ci beneen ba ci kaw bu ñu doxee nga gis ni kii ni moom weesu na fi xaaral ma yëgalaat leçon yi kay da koy lem rek waaw <laughs> moom daal tawarkal tawarkal moo tax sax fi ne bari na ñoo xam ne ñi ngi yóbbu seen doom ci daara mhm. eh, bëgg xel yi ubbi ko ci la bokk tabarakallah waaw ci ndax day da koy ubbi kon nag Cheikh Mouhamadou Moustapha Guèye Gaye mudir mm. euh, madrasa nekk fële ci Kër Massar xam naa kun naa fi xam naa kàllima waaxida waaw di doole sant rek euh, mbokk yi ñu fi yebaloon. Mm. tàmbale ci El Hadj Serigne Seck mi nga xam ne moo jiite liggéey bi ndeysaan jaar ci sëñ Fallou Seck mi nga xam ne mooy coordonnateur bi nga xam ne moom la jox lépp mu di ko coordonné mhm. ak sëñ Xaadim Ndiaye mi nga xam ne comité scientifique beeg borom xam-xam yi ci ne yëpp moo leen jiite mhm. sëñ Xaadim Ndiaye Fadia mhm. ah bële waaw sëñ Xaadim Ndiaye xam naa ko xam moo mi euh, ngi mi mi ngi fi liggéey bi daa bokk ci li ko li ko xañ ak jot <laughs> ma ne ko liggéey bi daa bokk ci li ko xañ ak jot ndax <laughs> moo ko moo ko ko moo ko yor ndeysaan euh, sëñ Dame Touré moom itam nekk fii C3S bu yaraax sëñ Mahamadan Dieng ak mboolem waa 3S yi rek ñu ngi leen di doole euh, sant di leen doole gërëm di woo ñëpp nag ci cérémonie bi incha allah dimanche bi ñëw incha allah ci Grand Théâtre jërëjëf mhm. lay sant bu baax a baax di leen gërëm bokk yi li ñu doon waxtaan tey alxuraan weeru alxuraan la nekk am ay xale yoo xam ni dañ koy jàng mokkal ko di ko bind te duñu ko xool C3S di ko def mu nekk liggéey boo xam ne su baree rek kaamil yi gën a bari ñi bind alxuraan gën a bari alxuraan des fi yàlla na yàlla defal ñu sutura wasalaamualeykum ah, maa ngi nuyu nag sëñ alaaj Ndiaye Cheikh Ndindi man Cheikh alaaj Ndiaye Cheikh Ndindi sonn na ci émission bi sonn na ci émission bi lu nekk def na ko ci guddi woo na ma guddi woo ma bëccëg ngir ba ma la lool moom <laughs> rek la kon incha ci beneen bis daañu dikkaat fii altine talaata àllarba alxames ci ndimbalu suñu borom kattanam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا ووحد صفنا وانصرنا على من عادانا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم من تكبر وتجبر علينا نجعلك